Adja. bala ñoo dem tey ci victime di bi ñuy indi nga xam ne tey maa ngi indi ki nga xam ne mooy Gabriel Kane Gabriel Kane la tudd de. yow Papa Souka nga fi Gabriel Kane mooy élément mais Papa Souka élément la. Papa Souka. dafa am ku mu teg victime ku nekk bitim réew benn moodu moodu. waaw fii moom affaire fii injustice moo fi jox dox. alaaji waa ji. loo ah, xam ne wax dama koy teg kay audio bi parce que fii moom ay affaire sama papa la ak sama kii sama mag la am ah, fan neen daa bëgg ma ger leen da leen di ger élément bi du jàll ah. ay ja waa ji ma nga ca bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ sooy bu ñu ngi lay siyaar bu baax yaag saa njoogu ak gànna mesere kii benn soppe la bu nekk Italie tudd may sa mbay di leen suivre chaque jour voilà chaque jour bu ko yàlla dogalee rek maa leen di suivre ci jàmm ak salaam di leen ñaanal yàlla ba képp ku leen yéenewul jàmm rek yàlla na ko jàmm fitnaal lu fa mu nekk du talleel du lu jàmm ndax yéen jàmm rek a xaj ci yéen di leen jërëjëfal bu baax liggéey bi ngeen di def am na solo waaye nag di la wax ni comme da def victime du net dama laa bëggoon a yóbbante lii yóbbante la ci sukaa waaw parce que man aussi j'ai été victime waaw pa Pa Mamour Mbaye moo moo ma def victime ndax damaa ñëw ca koñ ba. waaw doo tee Gabriel Kane ba suba. waaw xanaa da koo bëggoon a takk Baye Mamour may ko. ba suba may sa may sa papa lu ko def. benn non non suba non baal ba suba. koñ ban bu ah. baal ba suba. suba ci kañ ah, jëmet. comme nii. non non takk soo. Eh, déedéet nag déedéet continué ko waaye tamit nag. takk ba ah. du ma nelaw tey. ah. yow eh, ñaari avance bu Boubacar te te waa ji nee na day ñëw Sénégal bientôt. waaw. te dañ boo ko jàllalu fii damay demaat ci beneen rajo kon jàll ko. ah <laughs> a wala ma àggale ko rek. àggale ko rek <laughs> di takk soxna ñëw di nuyoo si kër ga am xew Pa Mamour Mbaye jaawale maa tëggkatu tama ba topp ma rek naan ma booy fi nga téye tama bi neex na de kooku moom dama bëgg nga kaañoo ko sukaa maa la ko may waaw kër mère Daba Diop laa ñëwoon di fa ñaan soxna <laughs> fekk fab xew mu topp ma rek fu mu tourné rek gis ma ne ma oh booy fi nga téye tama ji neex ma waaw Mamour Mbaye ca la doxee nekk sama. nee na fu mu tourné daal ne ko booy fi nga te tama ji neex na moom moo moo ñaan si soxna. na Mamour trop booy bi nga téye tama ji neex na. nee na xaritu nee na léegi sa xaritu papa la de. parce que li ko sa papa de booy bi nga téye tama ji baax na. bay nii la mel tama kon ak ay tëgg yooyu. tëgg bët gawal. Eh, aywa sooy bu. ñoo baax moom euh, Modou Modou boobu kon yóbbante bi yegg na. <laughs> mi nga mi ngi jeex jeexalee message bi nee na sa papa xaritam la. message mi xam Mbour 1 la. waaw loolu la euh, fi mu doon takkee jabar. foofu ah. sax xam naa fa lu baax nag. macha allah dama jóg vraiment. tabarkalla Maysa ñu ngi lay nuyu sa papa teg la tëggkat tama kon xanaa Maysa da ngaa niroog moom. <laughs> aywa ñu dem jëli nepat musical. ayca kuy sakan. Mamadou Diop Decroix. am gan ba pare désolé. waaw boobu dama war a ko indi. ah Mamadou Diop Decroix ndax lan. Ah, yow réew mi. Ah, ñu bëgg a ci déet li nga foog demee wul na waaw kay moom dina expliqué xaaral rek waaw nu yool demee wul ni nu nu yool dama waaw nu yool ci plateau bi tàmbaleegu moom kañ mu am ma ne réew mi daa nekk ci impasse bu nuppi génn ko ci laa bëgg après élection li ngeen foog lu ne hmm. waaw nuyul ba pare doo ko wax. waaw jërëjëf nuyu naa leen di nuyu waa. cour suprême voilà cour suprême mooy ñan. ñu yóbbul mbir mi. Euh, euh, cour suprême. Euh, Mamadou. Hmm. xam nga président Mamadou laa lay wax. waaw jërëjëf. Mamadou. de Croix. xam nga bee passé président Macky Sall moo ne élection lu am. Ah mais bii yow yaa na ci bëgg a yóbbu. moom la déet moom bii déedéet non non bii yow la. waaw da lu waaw waaw lu tax yow bii. moom ndax lan moom la. moo def décret. waa décret bi woote élection yi lam ca wax waru nee demee. daa jalgati yoon. nu yoon lanu ñu justice la ñu attaqué. comme lan parce que sart yi dañ nekk code mm. électoral bi. war ngaa am ñaar fukki fan ak benn ca campagne. amee su ko. fukki fan ak ñeent matut ña déet déet luwaa luwaa la bu dee loolu la bëggoon da ko waroon a jël yóbbu ko ca assemblée nationale député wote ko leer na nañ defu ko mu xëy rek bind dee ni moomum réew mi moomul réew mi mais il réew mi dan ko koy wan nun man ba may ndaw laa tàmbalee xeex. moom lay liggéeyal yow Macky président ah, Macky Sall nga président Macky. laa ko liggéey li nga def nii. courtier ci naka. Ah, lu ma ko. ankay ankay yàq réew mi maanaam discours la bëgg booy partagé ko. ma ne Macky Sall yàq réew mi. moom daal jàpp na dat. décret bi baaxul. mais jàpp na dat dañ koy attaqué mais jàpp na dat. waaye dama ne man yow lay wuti cour suprême. yaa nga ca ma nga ca PDS yaa nga cour suprême yaa ngay wër. fu fu waay daje mbedd ndakaaru yi fu waay tourné gis la nga yori këyit ah yow la fu ne ah? Ah? est-ce que naa xoo bi ñu seetaanee opinion ba la. fooy fu fu ba si ak nga dikkaat. nan yi nga yor di wër Ndakaaru rek. waaw yor ay këyit këyit yi PDS a ko moom. Karim nekku fi. léegi yaa ko fi nekk Abdoulaye Wade. yónni euh, ma mam xam ne lii man maa ko xam électoral damaa xam électoral ah. élection dama koo xam bu ngeen demee ya yéen a ngi wër mbir maa ngi riir ñi naan jomaay sonko sonko jomaay waaye bés bu bés ba jotee ngeen xam ni la ma leen ca wax mooy dëgg élection yi du am baaxut nan ko arrêté eh, eh, waa yow war ngaa yuuxu nit ñi ah man day yow eh waa léegi sa yuuxu bi nga yuuxu ñu ko arrêté loolu mooy lan bi yuuxu mooy ban façon yuuxu. yow laaj nga la candidat la rek. déedéet man dama lay laaj ak lu ci yoonam ak kay yu gis nga yuuxu bi mu yuuxu yow mel ni kuy joxe ordre yow koy joxe ordre ordre bi laa bëgg a joxe. bii nga joxe ah. nan ko arrêté. Eh! waaye yow léegi kan nga jox ordre bi. ordre bi nga joxe rek wax ko ki nga ko jox parce que ni nga ko waxee nii mel ni yaay président laa wax pour nu xam ni waaw mënee suta def campagne yow mënta am waaw yow candidat nga déedéet léegi yow lu ñuy hmm? ah? li jëm daa laa li lëj yow ba lëjël tax léegi yow ba ñu lëjël mbiru Ousmane waaw waxoo ci ah di dugal ak a génne di ko xañ leneen ñu joxe ñaari yoon ndigal juge joxe ko ñu bañ foo ne woon. Mhm. booba booba. RTS. foo ne woon. nga ne mbiri. ma ne Ousmane Sonko bi juge joxe ñaari ndigal. pour ñu pour ñu delloo ko ci moom ànduma ak moom. yow léegi kan nga euh, parti démocratique Sénégal moom ngay jàppale ni yow. ñoom la ñuy Karim la ñuy ah, yow man sa dëgg ni nga dëgëree fit et pourtant am na benn jour ñu dóor leen lacrymogène nga dugg biir RTS. demee nan la demee booy def histoire da ngay wax histoire na mu demee. nan la demee da ngeen ah. da ngeen da ngeen. bi ñuy sànni boobu daf ñu fekk ñu ngi dugg RTS. déedéet di yóbbu communiqué déedéet dañuy mars. demewul noonu. demewul noonu. waaw ah. ana âge yi yow nga ana âge ci lu mu ne. <laughs> Ah. ba pare man mosuma góor gi mosuma gis mu yànn lu yegg. mas koo gis projet bu mu yanu mu yegg mu am ci ndam mm. man li ma def yow mosuma gis nga yanu dara jang-jangee ko rek dem dugal ko ngat ngati ci am ci ndam waaw ànd ak di ko nëbb nit ñi waa parti waa parti démocratique Sénégal xamul ne président Macky nga àndal ah? moom nga àndal di ko nëbb waxal rek nag léegi eh, loolu nga war a wax rek waaye bu fi nekk hors antenne bàyyi nañ lépp fi émission bi jeex na ñu waxtaan entre nous kan président Macky ngay jàppale ruube rek dañuy hmm? ruube nii rek. da ngeen di ruube. loolu nañ kii recours yi amuñu ci yaakaar waaye faaw xam def bës. waaw mais nag papa ah, papa nag affaire yi yow itam nag ak fi réew mi toll. ñu ah, ngi campagne ah, da nga waroon bàyyi mu yegg gone yi bu ñëwee baaxul système bi jël yi nu fii loolu baaxul dañoo yàgg ci nguur déedéet kay li gone yi ñëw rek bëgg a fuxaat ci nguur yi topp leen faaw ñu découragé leen ah moo tax sa war lii yëpp ngay wax am ñëw pour découragé yi ah. ñu yaakaar ni élection du am bu ko foofu nu dugal suñu système bi ñëwaat jërëjëf gars ñu ngi commentaire waaw merci beaucoup jërëjëf El Hadji Modou euh, moom moo fi jaaroon Hmm? moom moo émission baa ngi jàll direct ndek waaw mi ngi jàll direct. li ma wax bi mi ngi direct la vraiment. merci ci élection yi kii kii. waaw ak njuuj njaaj yi nga nar a nu yéen nar def waaw. lépp jàll lépp génn ànd farba boo demee nuyu ñu farba ensemble yéen a bokk ak ruube gi nga wax ni da ngeen a ruube kon jàll na waaw da ngeen da ngeen di ruube merci jërëjëf euh, fa kontaan na Adja hmm. leen nga yàngoo